professeur Doudou Ndiaye ñu ngi lay euh, dalal. maa ngi lay euh, nuyu di leen sant di nuyu seen. Euh, auditeurs téléspectateurs yëpp. Mhm. fàttali suñu auditeurs yi ni professeur Ndiaye moom bokk na ci direction nationale bu SUDES. Euh, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal moom moo yor tamit li ñu duppee affaires économiques financière et sociales professeur Doudou Ndiaye ñu ñëw ci contexte actuel bi tey ji SUDES daal di génnee benn communiqué wax position euh, ci li nga xam ne mooy ubbilte jàng ak njàngale door te bi. comme ko waxee reprise bi le 4 ñi ñaa ngi koy laam-laame dina am ak du am yéen ngeen génnee seen communiqué di ci joxe seen position lan moo ci seen taxawaay. waaw ñun bi ñu càmbare comme ni ñu koy defee saa yu nekk euh, bi kuréel yi nga xam ne ñoo ngànk syndicat bi commencé ko ci daara yi suufe yi ba jëm ci daara yi gën a kawe ñu koy wax université. Mm-hmm. dañuy dajaloo di càmbar njàng meeg njàngale mi fi mu toll. Mm-hmm. ñun ñëpp gis nañu ne euh, depuis le 6 avril. dañoo taxawaloon tëjoon daara yi daara yi ci suuf ba daara yi ci kawe newoon nag le 4 mai yaakaar nañu ne lañ bëgg ubbiwaat euh, daara yooyu. Mhm. biñ taxawee seetlu ñu ne ñun de si def li ñu gis mooy que ni euh, bépp wax bi nga xam ne mooy jëm ci ubbi daara yooyu rek na fekk ñu am ndigalu ñi nga xam ne ñooy waay waay waay waay kër docteur yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci mbir mi. Mhm. ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñu mën a wax ndax fii ñu toll nii. suñu ubbee école yi ndax du doon saafara su jur jàngoro parce que ñun gis nañu ne école yi buñ ko ubbee ay millions yi millions ndongo daara ñooy jóge ci kër yi jëm ci école yi ay ay jàngalekat yu bëri junne junne jàngalekat yu nga xam ne ñu ci bëri demoon nañ seen gox ñooy war a jógawaat ci benn gox dellu ci beneen gox ñu yaakaar ne jaabante boobu mun na nekk lu nga xam ne mun na yeewaat feebar bii ngay ñuy wax ñu koy wax Covid Covid 19 moo tax ñu ne bépp décision buñ ci war a jël rek na fekk cëslaay gi doon ñu am ci ndigalu ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci ci faj ñu ne loolu suñ ko defee ba ñu am ci seen ndigal ñu jéem a xool nag li des ci jamono jooju buñ ne ñu àpp sangam yaakaar nañ ne ne danañ daan Covid 19 bi ñu ne nag à partir de àpp sangam boobu nañu jéem a xool depuis enseignement élémentaire. ba jëm supérieur cas bu nekk ñu xool nan lañuy ñuy yan fexe la ñuy nas pour jéem a fexe ba at mi ñu jéem a dabu ci li ëpp ci li nga xam ne ñàkkoon nañ ko parce que ñun yaakaar nañ ne euh, feebar bi ni mu méttee euh, ci université melul métteewul noonu ci enseignement moyen secondaire melul noonu aussi ci enseignement euh, élémentaire ba tax na bu ci nekk rek dañ koy jéem a utal saafara bu nga xam ne moom moo méngoo feebar fi mu toll ci fi mu toll ci moom hmm. parce que ñun yaakaaruñu ne rek dañuy jël benn saafara rek ne moom la ñuy def depuis enseignement euh, élémentaire ba ba supérieur parce que damay jël rek bu ma jëlee exemple université ci boppam rek dafa am situation yu bëri yu wuute boo jëlee fu ci mel ni université Cheikh Anta Diop ak université bu Saint-Louis université yi gën a mag daanaka boo xoolee ñoom ñu ci bëri seen xaaj bu njëkk pare nañ ko ba ñu ngi doon commencé seen ñaareelu xaaj mais boo ci demee fi mel ni Ziguinchor am na ci euh, ndongo daar yi nga xam ne ñoom seen atum ren mi tàmbalee ko ñi nga xam ne buñ koy tàmbalee aussi defaguñ ci sax semaine defaguñ ci sax weer ñu jàpp nañ kon ñaar ñooñu mënoo leen booleel jox leen benn pajtal bi nga xam ne pour jéem a sauver seen seen seen situation. Mhm. tax na ñun au niveau di si SUDES. Mhm. moo tax ñu ni daal mbir mi nañu woote waxtaan wu yaatu waxtaan bu nga xam ne amul xaj bi ak seen duñ ci boj bot bi kenn ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq njàng mi ak njàngale mi. mooy waajur yi mooy ñi nga xam ne ñooy autorités yi mooy ñi nga xam ne mooy jàngalekat yi mooy ñi nga xam ne mooy syndicat yi ñun ñëpp ñu toog pencoo ko xool fu ci nekk rek ñu xool lan mooy yenn pexe yi nga xam ne mooy pexe yi nga xam ne moo gën a jaadu suñ ci jaare dinañ mën a dabu li ëpp ci li nga xam ne moom la ñu moom la ñu ñàkk te ñu ne ci waxtaan boobu nag aussi ñu bañ a négliger dara xool fi nga xam ne yaakaar nañ ne mënatuñ faa dabu dara ah ñu ne ay la yéwén de ni fii bi ñu faa dabu dara foofu dañ koy wax ne dañ fay def année blanche fi nga xam ne mën nañ faa dabu ñu ne ah de suñu defee nii ak nii mën nañ faa dabu fi nga xam ne peut-être ah suñ ko mënee dabu aussi ñu ne ah yii de dañuy jël par exemple classe yi nekk classe d'examen ñoom nañu commencé d'abord ñeneen ñi après ñu xool ñu def ko li ñu koy waxee reprise graduelle donc ñun dañu jàpp ne solution yi dafa war a doon solution yu nga xam ne yu yu yu yu dul doon benn xool bu ci nekk rek ñu xool jàngoro bu ci nekk rek ñu xool saafara bi nga xam ne moom méngook jàngoro bu ñu dugal ko ko mais dañuy bañ rek ñu jël benn saafara bi jox ko ñëpp rek mën na am ñenn ci ñooñu dana doon saafara ci ñoom mais dina doon ci ñeneen ñi saafara bu jur bu jur jàngoro. ñu ne aussi ci ci déclaration bi. Mhm. ñu ne ñu ne gis nañu ne télévision yenn yi ak euh, ministère de l'éducation nationale naam ñu ngi def pexe di jàppale xale yi. pour ñu bañ a fàtte lañ jàngoon ñu ne loolu baax na lool waaye doyul ndax loolu mënuñ mën a suñu ko cee sukkandiku pour wax ne at mi baax na parce que am na xale yu nga xam ne ñu ngi ci dëkk yi gën a sori amuñ fa courant sax bay mën a am télévision wala bay mën a am connexion internet université tamit wax nañu ne étudiants yi dañu leen di jox seen cours yi par internet étudiant bi nga xam ne dañ koo ne ñibil mu ñibil euh, dëkkam nekk ca gannaaw Kaffrine amul courant kooku mënul am connexion internet te suñu xëtum réew ñu koy wax constitution dafa ne dañu war a yemale bépp ndongo daara ñu jox leen même jumtuwaay yi pour ñu mën a tolloo ay chance ñu ne nag donc buñ bëggee basé wu ci lii ñuy def ne at mi baax na su boobaa dina doon erreur bu mag a mag a mag a mag a mag a mag mbir mi daal nañu xaar ba euh, feebar bi jeex waaye kër docteur yi wax ñu ne ah ab sàngam de suñu génnee delluwaat ci classe yi du doon benn jafe-jafe ci nit ñi ñu xalaat maintenant ci nekk lan la war a mën a def pour mën la dabul li nga xam ne jot nga koo ñàkk. professeur gis nañ ne depuis quelque temps syndicat d'enseignants yi dafa mel dañoo def benn tir groupé euh, dajaloo ku ci nekk di. wax sa taxawaay ci reprise cours yi alors que ministre bi mën nañoo wax ne sax ba tey jàppagul date le 4 mais certainement dafa doonoon date gi ñu joxe parce que ba tey yaa ngi yéen a ngi gis euh, lii di discours mu ngi changé di varier di varier est-ce que nekk ñu di déplacer débat bi tamit. non déplacer ñu xam lu ñuy bañ. Mhm. dañuy bañ a doon magum magum xamoon naa ko mais bëgg a doon magum waxoon naa ko li ñu seen muy raam parce que ñun syndicat jàngalekat yi ñooy spécialiste technicien lii ñu gis muy raam ñu gis ne suñ ko bàyyee mu dugg fi ci biir mën na doon jàngoro ju gën a raw Covid 19 loolu moo tax ñuy teel a am teel a yëgal askan wi ne ah lii dañuy wax suñu ko defee nii te teguñ ko ci fii ak fii mën na jur lu gën a métti li nga xam ne moom la ñu am kon def nañu ko rek lu dul pour jéem euh, euh, li li olof di wax fagu moo gën faju parce que duñu xaar ba def ko mu mu yàq lu bari mm. ñu ne ah. xamoon nañ ko mais dañuy ne ah, dañ koy wax ba pare ba nga xam ne bu boobaa ñii nga xam ne ñooy suñu kilifa buñ ko déggee dañ ko analyser xam ne ah lii ñu leen di wax de xel mën na koo nangu suñ ci jaaree su boobaa dinañ mën a fajtal lu fajtal lu bëri loolu rek lañ ci loolu rek lañ ci jublu parce que depuis que njiitu réew mi woote woon waxoon ci conseil des ministres boobu ne na ko nguur gi na ko ministre éducation defal plan bu nga xam ne moom la teg pour xool nan la ñuy génnee ci mbir mi ci li jëm ci mbirum jàngam ak njàngale ñun dañu jàpp ne waxtaan woowu waroon la waxtaan bu gën a yaatu. ñu bañ cee botti kenn justement dégg nañ la ci say biir wax nga wax ko dafa war a ndax dañ leen ci boolewul wala da ngeen seetlu ne dafa am xàjjeeg seen. ah ñun de mënaguñoo mënaguñoo jàpp ne ñun daanaka ñun suñu syndicat de woowa gu ñu ci waaye nag ñun dañu jàpp ne comme ci lañ bokk duñu xaar ku ñu woo même buñ ñu woowut. lii nga xam ne ñun yaakaar nañu ne ay pexe la su ñu ko joxee suñu réew suñ ci jaaree dinañ mën a euh, euh, ñoŋal suñu njàngum réew ñun duñu xaar ku ñu woo moo tax ñu ne ñu bind bataaxal boobu ñu koy wax déclaration pour wax ci ñi nga xam ne mooy suñu xalaat yaakaar ne su ci euh, nguuru Sénégal jaaree mën na am ñu jéem a am année scolaire bu nga xam ne dinañu régler li ëpp ci suñuy ci suñuy ci ñuy jafe-jafe donc loolu moo tax suñ ñu woowoon nag doon na gën a baax. suñ ñu woon ca table ba di ñu toog fa doon na gën a baax parce que su boobaa daañu ko gën a mën a expliquer gën koo taf ba ñu gën a comprendre mais bu ñu woowul aussi duñ ne comme woowuñu rek dañu togg suñu xalaat noppi woo ko déedéet comme ñun ci réew mi lañ bokk dañu jàpp ne xalaat ku nekk rek war nañ ko mën a def mais di woo ministre bi ne ko war noonu la gën a yaatal waxtaan boobu bu fekkee ne commencé guñu ko mu gaawal ko su fekkee ñoo ngi ci mu dabu ko gën koo yaatal ba nga xam ne ñi ci war a toog yëpp ñu toog ci parce que ñun suñu syndicat mooy benn syndicat ci Sénégal bu nga xam ne dafa am ay jàngalekat yu commencé ci daara yi gën a ndaw yi ñu koy wax préscolaire ba jëm ci daara yi gën a kawe ñu koy wax enseignement supérieur jaar ci daara yi digg doom yi ñu wax ko enseignement moyen secondaire général benn la ci donc noonu ñu tëddee dafa ñuy man ñu am gis-gis bu gën a yaatu ci système éducatif bu réew mi parce que yeneen syndicat yu bëri yi ci ëpp ñoom ci benn pàcc njàng mi ci lañ nekk kon seen gis-gis mënul xóot ñu mu waroon xóotee comme ñun ñi nga xam ne dañu am gis-gis bi nga xam ne day ëmb njàng mi ci fi mu dooree ba fam ba fam jeexee kon loolu moo taxoon ñu yaakaar ne ñun waroon nañu cee woo woo ci acteur yëpp su boobaa buñ ko pencoo yaakaar nañ ne li fay rotee dina doon solution yi nga xam ne mooy gën pour suñu pour suñu école bi parce que situation bi dafa dafa jéggi day comme ni ko président bi waxee doon wax keroog ne l'heure est très grave. ci gis-gis googu sax tey lan ngeen yaakaar ne buñ ko defee mën nañoo dabe lii di heure yi ñu ñàkk ci quantum horaire. waaw li ñu gis mooy euh, d'abord pàccal mi saafara si moom day doon euh, ay dañ koy def pàcc pàcc. ñu bu ñu xoolee commencé université ñu jéem a xool lan mooy buñ xayma ku ci nekk ñaata nga ci ay waxtu nga ñàkk suñu xaymaa loolu ba pare xam ne parce que boo xoolee université Dakar liñ fa ñàkk wuute naag li ñu ñàkk université wu Ziguinchor dama koy bamtu toujours su boobaa pajtal bi ngay joxe université de Dakar du nuroog bi ngay joxe université wu Ziguinchor mën na am ci pajtal mi ñu ne ah ñii de lii ñu ñàkk. suñu toxalee at ak année scolaire bi yóbbu ko ba weer sàngam dina ñu may ñu mën a dabu lii nga xam ne dinañu par fexe ak mi du neen ah am na ñu ne ñii de il faut ñu jàng ba octobre continuer waat ba décembre ñu def examen yi ñu ne ñooñu suñ defee loolu ñooñu dinañu may ñu mën a dabu lool wala ñu ne ah am na ci boo demee ci enseignement par exemple moyen secondaire ak enseignement élémentaire ñu ne ah nañu commencé gum ci ñi nga xam ne ñoom la seen mbir gën a jàmp mooy classe yi nga xam ne dañ leen war a dañu war dañ leen war a natt pour ñu am ay diplôme fu ak mi jeexee mooy li ñuy wax ci tubaab classe en examen ñu ne nañu commencé ci ñooñu ubbi ñeneen ñi xaarandi après ñu doog ñëw ci ñu doog ñëw ci ñooñu loolu yëpp ay xalaat yi nga xam ne la ñun suñu syndicat ah, def nañ ci ay proposition doon xaar bu lu mel ni amee ñu jébbal ko ministre mais def nañ ko document aussi euh, daanaka tey wala suba dinañ ko yóbbul ministre éducation national dinañ ko yóbbul ci képp kuréel bu nga xam ne yaakaar nañu ne yaa ngi yëngu ci njàng njàngale nañ la jox suñu xalaat boobu euh, xel partagé ko ak partagé ko ak yow parce que def nañ ko ci document li ñuy wax mémorandum dinañ ko jébbal waa njiitu euh, gouvernement bi dinañ ko jébbal Euh, organisation société civile nañ ko jébbal parents d'élèves yi ne leen ñun lii mooy ci suñu suñu gis-gis suñ ko pencoo rek yaakaar nañu ne ñun dinañu trouver dinañ trouver solution bi nga xam ne mooy gën pour suñu pour suñu école sénégalaise. professeur Doudou Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. may fàttali suñu auditeur ne professeur Doudou Ndiaye bokk ci Sud-Est euh, national waaye it moom mooy chargé des affaires financières économiques et sociales bu Sud-Est merci beaucoup professeur.